Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf ay doomi Sénégal yu jëloon ñu bari ci ñoom dañu leen delloosiwaat ci réew mi ñaar fukki immigré clandestin yu defoon seeni pexe dem Espagne danañu leen dajale rungu leen dugaleen ci avion wàcce leen aéroport Blaise Diagne ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru octobre te du ca yam ndax journal bi mi ngi ñuy xamal ne suba ci alxames yi dinañu jëlee ca Maroc lu toll ci juróom ñaar fukki doomi Sénégal ak juróom benn yu newoon ci réew Maroc woowee indiwaat leen ci réew mi ca Rosso Sénégal fa leen di wàcce source mi leen ci réew mi seenub lim ëpp na loolu 1200 yi duggoon Espagne ci weeru sulet ak 3000 ya fa wàccoon ci ut ñoom ñëpp la ñu dajale indiwaat leen ci réew mi journalisé ku nañu kilifa yu réew mi yi ñoo ngi waaj rapatrier lim bu takku ci ay doomi Sénégal yu duggoon ci réewum Espagne ci anam yu jaarul ci yoon ci 14000 migrants yu duggoon ci Espagne ci atum 2023 yéenekaay bi nee nañu 90 pour cent yëpp ay sénégalais lañu ay sénégalais yeneen yu jëloon gaal bëggoon a dem Espagne ñoo ngi ci libération yëral xët mu njëkk journal bi bi nee nañu gaal ga ñu duggoon la garde côte yu Tunisie yi dogaale ci géej jël leen ba pare bandoo leen ca montagne yi am na kenn ku ci wax ci yéenekaay bi ne am na benn officier Tunisie bu leen wax ne bu ñu leen fi gisaatee dañ leen di rey journal L'Info bind na réewum Espagne fas na yéene rapatrier ci Sénégal lu ëpp 14 ci weeru octobre gi ca la ñuy tàmbali rapatriement gi remaniement ministériel gi ñu séntu ci réew mi Walf Quotidien xëy na dañu ci xamal ne am na ci réew réew mi ay région mu di ay dëkk yoo xam ne il faut que leen ciy bàyyi xel cëral leen ci poste ministres ngir ñu mën a am lu ñu xeexee ci élection présidentielle 2024 mu di ay élection yooyu la témoin gis na ne juróom a ngi yu mu jàpp ne du ñàkk ci ñoom ku ci wuutu Ousmane Sonko doon plan B bu parti Pastef muy El Malick Ndiaye di Bassirou Diomaye Faye di Abbas Fall Birame Souleye Diop wala Guy Marius Sagna bu dee Ousmane Sonko mënut dem du ñàkk ci ñoom juróom ko di sàkku mu di ñu delloowaat ko ci liste électorale yi ñu ko seppe suba ci la ci tribunal bu Ziguinchor di wax te ñoom avocat yi am nañ yaakaar ci ne tribunal bi dina leen wax li ñu bëgg a dégg ñu dégg ci l'observateur ne waa RADEL réseau des acteurs de la décentralisation et du développement local ñoo nga woon ca tig-tigal googe mu di ca Casamance ginnaaw Mbour RADEL ci njiital Maguette Sène maire bu Malicounda ñoo nga woon ca Cap Skirring ngir doon fa saxa ak doon fa lawal banqaasi réseau ba ci la ñu dajale woon ay maire ay ancien ay adjoint au maire ay président conseil départemental ak ay président conseil rural ko woon ci Ziguinchor ci Sédhiou ak ca Kolda lañ fa doon waxtaane l'observateur nee nañu mooy seet nu ñu mën def ba taxawal ab politique décentralisation boo xam ne dafay gën taxaw ci wàllu développement territorial dëppale ko nag ak doxinu état bi muy ci wàllu économie locale di ci wàllu aménagement territorial ba ci wàllu environnement wàllu santé di wér gi ci xët mu njëkk soleil yéenekaay bi nee nañu ci diirub juróom-ñetti at machine dialyse yu paan ci hangar pèlerin moo jural jaaxle gu rëy ña fa nekk ca woppi insuffisance rénale tëral leen fa l'observateur xëy tëral ci xëtamu njëkk wàllu njàng njàngale mi déficit d'enseignant mu di ñàkkum njàngalekat gi ñu nemmeeku ci réew mi moom la yéene kay bi xëy di gëstu ak di càmbar li ko waral recrutement spécial gi premier ministre doon wax journal bés bi le jour moom ci la xëy xëy ñu xamal ne yëf demul dikkul te li